c'était donc euh, question de leur familiariser avec euh, l'importance de ces élections vers lesquelles nous nous acheminons au mois de janvier. Vous constaterez de vous-même qu'ils sont pour la plupart des primo-votants, donc qui méconnaissent tout du processus électoral et des enjeux même de ces élections. C'est la raison pour laquelle nous leur avons parlé d'abord du pourquoi des communes d'arrondissement, qu'on a connu sous Abdou Diouf euh, à travers euh, le découpage de 1996 qui était très inspiré à l'époque par les contradictions internes du Parti socialiste et ensuite euh, le, la réforme de Macky Sall à travers l'acte 3, 3 qui en a des communes de plein exercice et des compétences transférées. Donc nous leur avons parlé de toutes ces problématiques. aussi que la création des communes a pour objectif d'appliquer aux grandes villes euh, les principes fondamentaux euh, de la politique de décentralisation pour effectivement une meilleure administration des zones urbaines euh, telles que Derklé, Dieppel, Castor, etc. Donc il était question de faire euh, la genèse à, à ces primo-votants de, de toutes ces problématiques. Ensuite, nous avons fait un tour d'horizon sur la proposition indécente du monsieur élection de l'APR, monsieur Benoît Sambou, euh, qui a proposé la somme de 40 millions. Nous y voyons une volonté manifeste euh, de saboter la candidature de certaines personnes. Mais sur ce, je voudrais simplement lui dire que, euh, en ce qui nous concerne, nous, la convergence autour de la commune de Dieppel-Derklé, toutes les options sont sur la table pour participer à ces élections voilà dañu ñëwoon tey kon daje ak euh, suñu sympathisants yi euh, doon waxtaan ak ñoom ci importance li élection yi am ndax boo xoolee di gis ne que ñoom genn wàll gi ñu ci bare suñu voté donc xamuñu dara ci importance élection yi ak enjeu yeeg yëpp donc waxtaan nañu ak ñoom ci li ko waral ak euh, solo bi solo solo élection bi ak lan ak lan ak lan moo ko waral lan lan mooy commune lan mooy commune waxtaan nañu ak ñoom ci lu bare ci loolu euh, ba noppi wax leen li nga xam ne ñun moom moo ci war a nekk suñu taxawaay euh, di wax ne tamit fi ñu jeexalee mooy ñëw nañu ci proposition bi nga xam ne bu ñàkk sens bi nga xam ne amul benn solo bi Benoît Sambou def démb ci daje bi nekk cotion bi dañ ko yóbbu ba quarante millions euh, loolu ñun gis-gis biñ ci am rek mooy daf ko wax rek pour xëy na saboter ak kale ak intention bi nga xam ne moom la nguur gi am pour téye yenn candidature indépendante yi waaye lu ci mën a am rek ñun en ce qui concerne au niveau de la convergence mooy option yëpp mu ngi ci table bi ñu teg pour participer ci élection yi ngir changer li fi nekk Euh, voilà loolu loolu laa amoon lu ma ciy wax jërëjëf.